ki mooy copain waa parcelle. <laughs> maa ngi lay maa ngi ziare. ruube parcelle rek nga fi nekk. ah waay déedéet waaye itam. yow moom yaa ko marqué yaa marqué année bi. Ibrahima Mbaye mii la du man. <laughs> ki mooy révélation <laughs> xam nga non xam nga parcelle ak Pikine benn la rek. waaye tooñu Lac de Guiers numéro 2. waa mais loolu dara làmb la rek dañuy bëgg làmb ji neex rek. Ah. parce que làmb dafa manqué tuuti cafka. te mbër yi ñoo ko war mayante ci seen biir. am na signature contrat yi doon am bu njëkk loolu amatul quoi te loolu doon neexal làmb xale yi nag dañoo war a bëre parce que euh, ku mel ni Pikine Guédiawaye Parcelles bu njëkk yooyu sax même bu njëkk ma kii Fass Pikine moo doon moo doon dër bi waaye ñooñu ñëpp nag vraiment sorewuñ daal loolu loolu dër bi quoi. waaw léegi boo doon def euh, bilan si saison bi loo ciy jàngat ak sa combat bi amul. waaw euh, man dama jàpp rek ne. Euh, combat la boo xam ne bii xëy na amul waaye euh, dañu noonu ñaan yàlla rek mu bañ a yàq ci ñun comme xam nañu ci ñëpp ci Modou Lo waa Parcelles Assainies. yaa ngi ruube Wade yaa ngi ruube Wade. yàq lamb ji dégg nga di daw ak wuute ordonnance yi kenn xamul. non waaw xam naa li ma la wax yooyu ñun ñaanuñu yàlla loolu dóor juy dóor dóor ñu nangu ci la biir géew bi la loolu waa Pikine ku ko def Pikine ñu boo ñibisee ñu rey la. yéen doon tooñ gars yi a ñëw fii bëgg def signature ngeen kar ko. ban kar. yéen ko kar 7 ans moo koy kar muy def. que 7 ans. xale ko dàq fii. du maay tam Mawlo Mawlo Guèye ku dàq gars yi ma gis fii yëpp. am na ci mbëri géej yoo xam ne dafa leen ba ñu daw waaw yaa may dégg ndax xuma laa jàng kooku Mawlo loolu dàq ko. am na mbëri géej yoo xoolee boo nee Modou Lo ngi ñëw rek ñu daan naa ni kaan yaa mën nga tooñ na waaw mais xam nga rek bon lan la wut ordonnance ay mooy dafa ko fekk mu ngeek ay certificat médical am day remplir rek bu ko melal tan matte sax mu wut médical remplir mu remplir <laughs> waaw mais noo gisee xale yi nag waaw xale yi ñoom ñu ngi ñu ngi ci vraiment xale yi dañ leen di ñaanal yàlla rek ñoom itam ñu fekk seen i mag mag yi itam nangoo bëri ak ñoom quoi. ñu fi ay xale ñoom booy Pokola. ñoom booy Jacob Balde. waaye c'est des révélations yoo xam ne yi ah, Pikine lañ dëkk ak yeneen i booy sax yoo xam ne yi seen mag soq ak gars yi bare bare xam nga li mu def ko stade bi fii 200 pour cent bi kenn mënu ko la preuve gis ko amaat na combat donc loolu dafa baax ci lamb quoi. dañuy ñaan nag yàlla saison bi tëj ci jàmm rek ubbiwaat ci jàmm kenn bañ a manqué quoi. déwén doo ruubee waat. non non déwén moom. dama damay remplir ordonnance. no xam na ne moom fi mu ne nii sikkim ba ak euh, kii ak yooyu xam naa ni ma koy ni ma ko màggalee. xam naa ne loolu nañ ko ñaan ko bàyyi rek ñaanal ko quoi. dem na États-Unis defaru ji de. dem na daa defaru moom daa def daa daa daa yàqu bay defaru. dara jotu ko ay wax caar na rek. dara jotu ko. non eh, loxo bi nag day métti épaule bi day oh, métti. xanaa beneen bi mooy métti dégg naa beneen bi mooy métti beneen bi. ak oom beeg ndigle.